Okay, alhamdulillah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله نيجي ورا جيل تاي آية 16 في سورة الشورى آية 16 سورة الشورى ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli ca yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaan mu nangul ñu suñu daje bi ñu daje ci néegam bi fas yéene jàng ab téeréem ci we ci weeru màgg wi nga xam ne ñi ngi nekk ca cet la ñi nga koy ñaanit ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf yal nañu yàlla boole ak ñoom ak ñi nga xam ne ñoo dox suñu diggante ak ñoom te la nga xam ne mooy ngërëmam la ak afiyaam fi dunia wal axira kon incha allah bu dee ne Cheikh Ousmane pare na mu jëlal ñu suñu bind bu jëkk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنبرم مني والذين يحاجون في الله ñi nga xam ne day ñooy dàgg sante ci mbiri yàlla min baadi mastajiba lahu min baadi mastajiba lahu gannaaw ba nga xamee ni wuy si nañu ñeel yàlla xujjatuhum daaxila seen layya day baatila neen la inda rabbihim ca seen boroom wa alayhim gadab ci dana nekk ci ñoom mer walahum azabun shadid te dana leen ñeel mbugal moo xam ne mu tar lay doon allahu alladi anzala alkitaaba bilxaqi walmizan yàlla mi nga xam ne moo wàcce téere bi ci dëgg moo wàcce it lii nga xam ne mooy balance te mooy ak maandute wa yud wa ma yudrika laalla saata qarib moomam lu lay xamal ci ne day bi si pénc nekk na lu jege yastajilu biha allazina la yuminuuna biha dana ko yàkkamti ñi nga xam ne ñoom gëmuñu ko waaye wallazina amanu mushfiquuna minha amma day ña nga xam ne dañoo gëm ragal nañ ko gën jaa tar ci ragal wa yaalamuuna annaha alxaq te xam nañ ne bi si pénc dëgg la ala inna allazina yumaaruuna fi saa la am day mooy ñay dàgg sante ci mbiru bis penc la fi dalalin baid ñoom ñi ngi ci réer gu sori allahu latifun bi ibaadi yàlla day ku yërëm la ñeewante ay jaamam allatif mooy yërmaande gu ànd ak xam-xam bu mat sëkk mi ngi noonu yarzuqu man yasha moom mooy wërsëgal ku ko neex ci ay jaamam wa huwa alqawiyu alaziz mooy borom kattan gi mooy ki not lépp it ku tedd ki not lépp jalla wa ala mi ngi noonu bokk suñ borom day wax fii rek ne bi mu yónnee ay yonentam yonent yooyu am na ay jaamam yu leen gëm te mooy xam ne la ñuy woote dëgg la ñu daal di koy jël topp ko mu am nag yeneen jaam yoo xam ne dañoo jóg ñoom ngir def le contraire mooy ñooñu nga xam ne dañoo gëm yonent bi topp ko ñuy fexe ba ñoom lu ñu leen génnee ca diine ja mooy allazina kafaru wa saddu an sabilillah suñ borom nag na ñooñu day mboolem fexe bu ñuy def ci neen rek lay mucc ca mbokk jullit it xam leen ne fexe yooyu du dagg ba ila yawmi din ndax seen kilifa du dee ba ila yawmi din wala boog du dee ba ba adduna di jeex te mooy iblis looloo tax ba mbokk jullit xamal ne nga yëg ko ak nga ñàkk koo yëg lislaam ñi ngi koy xeexe côté bu nekk loolu ngeen bàyyi ko xel amma diine lislaam moom kenn mënu koo xeex xeex ba nga koy xeex day tax nga gën koo yëkkati dan day tax nga gën koo yëkkati loolu muy remarque bi ñu def ci heure bu fitna amee ba gaa yi joxoon lislaam keroog bi George Bush taxawee ñu daañal seen immeuble yi mu jóg lu mu wax ne croisade l'islam nangam nangam loolee nettali naa leen fii ñaari jeune yoo gars yi doon interviewé ci rajo Arabie Saoudite mooy émission yi ñuy wax lu tax nga lu la dugal ci l'islam journaliste bi mu ñëwee dajeeg ñaari jeunes yi ñuy ay américains yi yéen lu leen dugal ci l'islam ñoom ñaar ñu xoolante mu ñu ne George George Bush waaye ñu leen George Bush mu ne waaw ñu ne ah dëgg-dëgg George Bush ma ñu dugal ci l'islam ñu ne ñoom mosuñu dégg l'islam mosuñu dégg l'islam mais biñ daaneelee la nga xam ne mooy imme seen gratte-ciel yooyu ñu dégg Bush naan l'islam l'islam ñu ne mais lan mooy l'islam ba lan ñoo bokk l'islam bay mën a def lii ca la ñu dem ci bibliothèque yi jënd ay téere yi wax ci l'islam biñ ko liiree lañ xam l'islam xam ne ndekati lii mooy diine dëgg loolu moo leen taxatoo ba ñëw ak si màgg kon xeex bi ñuy xeex suñu borom neen dañu bëgg a fay leerug yàlla gi yàlla di moom di matal ab leeram te ku ne xam ne ne taal bu yànj soo ñëwee téem ko di ko ëf loo gën a ëf day gën a tàkk am déet ñu ngi noonu borom boobu nag ne non seulement loolu ñu bëgg du am waaye teg ci daan ci tegit merum yàlla te loolu mbokk mooy almaghdubi alayhim mooy li ngay ñaan bés bu nekk léegi lañ ko ñaan yàlla insha allah ci kanam tuuti ñu ñaanal ko yàlla mooy yàlla teg ñu ala siratul mustaqim te musul ñu ghayril maghdubi alayhim ñi ñi nga xam ne dañ leen a mere te mooy ñi xam ne lii dëgg la ba pare ñu won ko gannaaw kan moo jiitu ca mer ma muy suñu boroom ak i malaakaam ak mboolem jaam bu baax te it jullit day gëm ne yàlla day mer day gëmit ne yàlla dara melul ne moom jullit da ngay gëm yàlla day mer yàlla dara melul ne moom nit ku mer xam nañ ko mi ngi noonu nag bu mer sax xam nañ ni mu réagir amma suñu borom laysa kamislihi shay dara melul ne moom borom boobu nag ni yàlla mi nga xam ne moo wàcc téere bi mi ngi noonu téere bi mbokk mooy jins mooy wàcce téere téere yi wàcc yépp ñoo bokk lu ñuy wax mi ngi noonu tawraat injil yépp yàlla moo ko wàcce moo ko wàccee ci dëgg ay wax ji ci moom la jóge ñim jaarit wàcce nañ ko ci dëgg ci ñam leen yónni woon mi ngi noonu moo wàcce it al misaan misaan bokk mooy maandute yàlla moo wàcce maandute al adl inna allaha ya'muru bil adl lan moo jiitu ci maandu mooy sa borom yàlla bi la bind moom rek nga jaamu ko moom rek lan moo jiitu ci jeng mooy sa borom yàlla ngutal ko bokkaale loolu moom mooy jiitu ci jeng gannaaw ba it bokk na maandute ma yonent yàlla bi bu ko yemalee ak kenn gannaaw ba nag nga doog a dem maandul ci njaboot gi maandul ci surga yi maandul heure booy atte maandul heure booy seede te mooy almizan maandu donte ne bokk na ci maandute balance yi ñu yor ci bitig yeeg magasin yi te mooy ki ngay jëndal ngan la waaye ñu ne 10 kilos la nañ indi preuve buy wàññi ne 10 kilos la jënd ci moom boo koy jaay nañ indi preuve buy wàññi ne 10 kilos la ñu teg la nga xam ne mooy misaan mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala ni lan moo lay xamal ni mën naam bis fecc lu jege la te itamit mbokk suñu borom yàlla bi mu deferee asamaan ak suuf moom moo xam kañ la woon gannaaw ba nag muy yónni ay yonentam ba yónni dernier ndaw yonent bi alayhi salaam daan wax maag bi si pénc rawante wuñu lu toll ni li ñaari baaram yi rawante quatorze siècle wàññeeku na ci waaye du tax nag ñu xam kañ la secret la bu yàlla dencal boppam malaa ko xamu ko jinna xamu ko ku taxaw ni bi si pénc heure bi lay tab bi yéeféer la weddina alquran suñu borom yàlla subhanahu wa taala nag ni lu lay xamal ne mën nam jege na waaye nag mbokk bis penc yëpp waaye nag yow bis penc xamal ni daa am lu la fa yóbbu la la fa yóbbu muy sag dee ku nekk ci ñun war nay laaj boppam ama ndax sama dee jegewul ah mbokk yàlla moo xam de yàlla moo xam ngi ne di nettali fii koo xam ne dañ doon ànd ak moom toog ci tafsir bi oustaz Ali Niang nga xam ne moo faatu bërki démb ci témoignage yi jot am na Salih Ndiaye bi ñëw fii nee na mu am na ku ne ko romb na ko boori timis mi ngi toog këram di jàng alxuraanam boori timis mi ngi toog këram di jàng alxuraanam avant guddi gi jeex faatu na loolu kon yàlla moo xam mu ngi noonu yàlla moo xam mbir yi naka lay demee su ko defee doomu aadama bi war a góorgóorlu ci fexe ba lépp loo xamee ne nii ragal nga dee fekk la ci rek nga moytu ko loo ragal dee fekk la ci rek moytu ko ndax xamoo ndax dee du la ca bettam déet te it nga tàmm lu baax wala boo tàmmalee sa bopp lu baax rek lu baax ngay dee yal na yàlla tàmmal ñu lu baax. suñu borom nee na yéefér yi dañ koy yàkkamti yàkkamti bi mooy lan dañu ñëw ci leen ci waaw yéen génneen bis penc am na kañ ni bis penc parce que gëmuñu ko gëmuñu ko am naa suñu borom nag mu ni ñi gëm yàlla ñoom dañ koo tiit ngi noon ishfaaq mooy ragal gi gën a tal ci ragal lañ ko ragal ca mbokk xoolal bis boo xamee ni mboolem la nga mës a jëf suñu borom yàlla dana la ci xisaab doomu aadama bu nekk yaa xam sa bopp muy benn la nga jëf ci lu bon xam nga ko la nga jëf ci lu baax ku la wax yàlla nangu na ko suñu borom mu ne walazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila ña nga xam ne ña ngay def lu baax di tiit kan moo la xamal ni li ngay def yàlla nangu na ko looloo tax mbir mi dalay tiitloo suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne suratu tuur inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin mu ne jaamam yi mu tànn tàbbal leen aljanna yal na yàlla boole ñu ci nee na buñ demee aljanna la ñuy jëkk la bokk na ci la ñuy waxtaane ay waa ñun day àdduna ni nga àndoon ak tiit bu tar inna kunna fi qab qab qablu min fi ahlina mushfiqin fa manna allahu alayna yàlla moo ñu baaxe wa waqaana azab as-samum ba musal ñu ci mbëggalum samum bokk da ngay gis quatre-vingt-dix pour cent doomu aadama yi tey xalaatuñu sax ragal safara abadan ndax am nañ des garantie yoo xam ne ni moom àjjanay gàcce rek la ñuy bañ mais safara moom c'est garantie gis déggal àjjana moom c'est garantie mais waa àjjana lu ñu wax yàlla moo ñu baaxee waqaana musal ñu azaba samum lu waral loolu inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwa albarru rahim ñun daawu ñu dañ dim bañ nekkee àdduna di ko ñaan ngir mu musaluñ ci sawara yàlla moo ñu lay biir yërëm ñu mbokk nañ dellu ci ñenn ñi xamoon alquran nañ dellu ci yaay Aïcha radiyallahu anha alquran ba masa wàcc ci yonent bi alayhi salatu wasalaam ca këram nga néeg Aïcha la Jibril wàcc mosu koo fekk ci beneen néeg lu waral loolu mooy benn jànq bi yonent bi alayhi salatu wasalaam takk Aïcha moomi magam mooy Asma seen papa mooy Abu Bakarin Saddiq Asma boobu am na doom bu ñuy wax Urwa ibnu Zubayr Urwa nee na sama yaay daf maa yónni ci sama tante Aïcha nee na bi ma ñëwee dugg ci néeg bi maa ngi ko fekk mi ngi jàng alquran di jooy di jàng aaya boobu ma leen wax ci suratu Tuur inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna allahu alayna wa waqana azaba samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwa albarru rahim nee na comme maa ngi ko gis mi ngi nekk ci aaya bi jooy mën a at naa dem ci soxla bu ma amoon ci marché bi nee na bi ma demee ci marché ba li jënd sama soxla dellu si waat ci néeg bi paasewul aaya boobu mu nekkoon mi ngi répété aaya bi rek di jooy ay yàlla waa àjjana de ñi ngi naan ñun dañoo nekkoon démb di ragal mbokk kii de yonent yàlla bi moo nekkoon borom këram yonent ba yàlla bi ko yar ci kawam la yonent bi yàlla yàlla bi faatu Abubakar ni Saddiq mooy baayam soo ragalee àllaaxira bay jooy nu nu nu nu ñu war a def ñun nu ñu war a def waaye ñooñu seen xol daa dundoon dañoo xamoon yàlla xamul lu ñu leen woon ay nit dañoo xamoon ne ku nekk ëllëg yaay responsable ci sa kanamu borom loolu mbokk bañ demee rek ba diine ji yàqu la li xew yépp xam ngeen ko léegi borom boobu nag subhanahu wa taala ne ñiy dàgg sante ci bisi penc day ñi ngi ci cànkute goo xam ne gu sori la réer goo xam ne nii gu sori la mi ngi noonu borom boobu nag ne mooy allatif moom mooy ki ñeewante ay jaamam yërëm leen lépp loo xame ni nii jëriñ na leen rek defal na leen aataakum min kulli ma saaltumuhu huwa allatif mooy borom ñeewanti borom yërmande ci yërmaande day ànd ak xam-xam tey bàyyi mën na jóg gis doom ji di caddi caddi mu yërëm ko lool daw ak moom hôpital bi mu ñëwee médecin bi xool ko ah ci opération d'urgence la laaj ndax ndax médecin bi dafa amul yërmaande ba nar a xotti biiru xale bi déedéet yërëm na xale bi noraw ni ko bàyyi yërëm yi waaye daa xam lu bàyyi bu xamul il faut opération d'urgence opéré ko xale bi wér allatif nag jàlla wa ala mi ngi noonu mboolem loo xam ne jaama yi ittewoon nañ ko allatif xam na ko loolu moo tax ba nga jàq di woo keneen kul allatif wallahi yow yaa ñàkk xam tax suñu jigéen ñi rek bu ñuy wasit ñu leen di wax ñuy ñuy woo yaa latif waaye dañ cee boole yàlla nag ma yërëm mi ngi noonu suñu borom nee na mooy wërsëg wërsëgal ci nu mu ko neexee wërsëg mbokk amul raison yàlla rek moo koy def mi ngi mel ni rek jëmm yi amul raison suñ taxawoon léegi nga gis ko jege deux mètres gis koo xam ne un mètre quatre gis ko un mètre cinquante ndax borom deux mètres yi daa ëpp lu muy lekk déedéet yàlla moo dogale noonu wërsëg it noonu la doomu aadama yëpp dañuy xëy di wàcc di xëy di wàcc mais yàlla subhanahu wa taala mooy wërsëgal kii alal kii mu wërsëgal ko ay diplôme kii mu wërsëgal ko ay soxna kii mu wërsëgal ko ay kër kii mu wërsëgal ko ngóor ku nekk mooy xool la ko neex mu jox la jalla wa ala yarzuqu man yasha mooy alqawi yi ki nga xam ne kattanam kattan du taxaw ci kanamam moo tax keroog bi waa aat di wax naan man ashaddu minna quwwa mu ne awalam yaraw anna allaha alladi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa mi ngi noonu ci it mooy aziz mi ngi noonu Cheikh Ousmane
من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب قريب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما ما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne man kaana yuridu xarsal axira koo xam ne daa bëgg lii di toolub alaxira day nazit lahu fi xarsi daañ ko dollil ca toolam ba wa man kaana yuridu xarsa dunia koo xam ne nag toolub àdduna dong nga bëgg nu'tihi minha daañ ko jox ca àdd ca àdduna joojee wa ma lahu fi alaxirati min nasib te du ko ñeel alaxira day benn cër am lahum shurakaa'u shara'u lahum min ad-din moo ndax ñoom da leen a ñeel ay bokkaale yu leen tëralal ci diine ji ma lam ya'zan bihi llah ma lam ya'zan bihi llah ci loo xam ne yàlla joxewu ci benn ndigal walaw la kalimatul fasl tey bu dul woon a kaddu goo xam ne kaddu teqalee la la qudiya baynahum kon doon nañ àtte seen diggante wa inna zalimina lahum azabun alim te tooñkat yi day dana leen ñeel mbugal moo xam ne mbugal mu tar la tara zalimina mushfiqina mimma kasabu da ngay gis tooñkat yi day ña nga ragal lool ca lañ fàggoon ah d'accord waaw da ngay gis ne tooñkat yi ña nga ragal lool ca la nga xamee ne nii moom la ñu faggu wa huwa waaqi'un bihim ca loolee day dana doon luy tabbi seen kaw walazina amanu wa amilu salihat ñi nga xam ne nag dañoo gëm cay jëf-jëf yu baax yi fi rawdatil jannat ñoom ña nga ca jardin àjjana ya lahum ma yashaauna inda rabbihim dana leen ñeel lu leen soob ci seen boroom zalika huwa alfadlu alkabir lii de mooy ngëneel bi gën a màgg mi ngi noonu mbokk jullit alaxira mi ngi suñu kanam doomu aadama yi uute nañ ci gëm ko ñàkk koo gëm amma ñi nga xam ne gëm nañ ko ca muy dëgg ci ñoom seen dunduk àdduna yépp waajal alaxira la jàpp naa ne daje bi ngeen ñëw fii yaakaaru leen nit bi yóbbaale ay CFA ki dollar bu ko defee ki nga xam ne moom mi ngi jóg ngiree yàlla fay ko àllaaxira borom bi nee na dinaa dolli ab toolam danaa dolli ab toolam ci ñaari mbir benn mbir boo lebal yàlla fukk la lu koy bindal ba juróom-ñaar fukk ba juróom-ñaar téeméer ba lu ko soob ñaareel bi tamit suñu borom yàlla subhanahu wa taala da ngay gis ne adduna bi yàlla dana la ci jox teraanga avant teraanga alaxira alaxira nga sàkk woon yàlla booleel la adduna ak alaxira loolu mi ngi noonu loolu moo tax ba yonent bi alayhi salaam ne soo bëggee yàlla yokk sa wërsëg soo bëggee yàlla yokk say dit del def lu baax jëmee ci mbokk yi te mooy jëf yu baax day yokk dunduk doomu aadama day yokk wërsëgam da koy may jàmm def lu ba même chose sunu borom nag mu ne koo xam ne adduna moom nga bëgg daañ ko jox ci adduna ja waaye loolu it la ca soob yàlla firiwul ne ku bëgg adduna am adduna am la borom bi di wax naan man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nashaa'u liman nurid koo xam ne adduna nga bëgg daañ la ca jox lañu ca neex ñun yàlla ñu ngi noonu gannaaw ba ma tàbbal ko sawara wa man arada al axira wa saa laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura amma ñi bëgg alaxira ci liggéeyal alaxira lañ ko war a liggéeyal te mooy lu dëppoog sunna suñu borom nee na ñooñu seen jëf dañ ko gërëm mashkur ca yàlla adduna bim gënale bim alaxira bim gënale ci kaw adduna yàlla da la ko may teraanga adduna may ko teraanga alaxira mi ngi noonu nazid lahu fi xarsi borom boobu nag ne ma ndax doomu aadama yi dañoo am ay bokkaale yu leen di tëralal ci diine ji lu yàlla joxewul ndigal boo ko xamal ne mbir yi ñaar la ñi ngi koy wax ak mbokk yi démb ci qiyaama suñu borom dañoo indi àdduna ubbil ñu kaw suuf tàggatal ñu lépp lu fi nekk looloo tax ba scientifique yi nekk NASA ak feneen ak feneen jullit ñi ñoo leen ci waroon a jiitu te it ba presque ay quatorze seizième siècle jullit ñi ñoo ci jiitu woon kon lu waay man ci créer na def lu waay man ci créer na def wallahi ki jëkk a créer portable su doy su doon ki jëkk a créer portable su doon ne ab jullit la fu waay yëkkatee ci portable rek moom ci tuyaab mi ngi noonu loolu kon yàlla ubbi na ko amma diine diine ji moom yàlla da koo indi tëral ko ne nii laa ko bëggee képp koo xamee ne nii ñëw ne dé déedéet lii moom mën nañ ko bàyyi comme niñ koy gisee nga woo mbooloo ne leen bàyyi leen julli gi bàyyi leen koor gi aj màkki gi bàyyi leen ko àjjana ngeen bëgg danañ leen garantir ngeen tabbi aljanna keneen moom ñëw fekk diine gi mu jël léppam waaye nag am leneen lum ci dolli nag ne saa mbooloo moom ndollanti bii ma ci dolli moom ci ngeen di rawee keneen ku dul yéen loolu lépp mbokk dañ koy gis loolu nag heure boo ko defee wàññi diine yàlla ci wala nga yokk diine yàlla ji teg nga sa bopp yàlla ku la ko nangul def na la yàlla looloo tax kii di ibnu xaatim keroog bu mu tuubee ci lislaam yonent bi dafa jàngal alquran ba jàngal ko aaya bi suñu borom bi dox naan ittaxasu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min dunillah wal masiha ibnu maryam ñoom day jël nañu seen kilifay diine yi rek def leen ay yàlla mu ne ko waaye yonent yàlla bi mais ñun def ñu leen woon ay yàlla de mu ne ah ndax daaw ñu fekk lu yàlla digle ci diine ji ñu teggi leen ko ngeen nangu ko ah ah kay loolu koy amoon na ndax ñoom daaw ñu créé seen mbir ci diine ji ngeen topp leen ca loola ah loolu koy am na mu ne loolu moom ngeen leen defoon yàlla moo tax suñu borom tudde leen shuraka am lahum shuraka képp koo xam ne diine yàlla ci sos nga ci lu yàlla joxewul ndigal te kenn la yàlla joxoon ndigal suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam muhammad moom yàlla nee na moom ci boppam law taqawwala alayna ba'd al aqawil la axasna minhu bil yamin summa la qata'na minhu al watil su doonte ne moom ci boppam sosal na ma wax xeet bi loo xam ne waxluwuma ko borom bi ñu ne danaa dagg buumu xolam te léegi mu wax lu mel noonu ci ci page bi ñuy jàkkaarloo borom boobu nag subhanahu wa taala mu ni kon mi ngi noonu diini bàyyi leen ci xel amoon nañ benn waay boo xam ne nii yal na yàlla jéggal ko yërëm ko daan wax waay eh waay gaa yi wax loo wax ñu ne biddaa biddaa tekki leen seen montar yi yonent bi daawul takk montar ay waay bu ngeen demee puut di jënd mango bu leen jënd mango yi puut yeneen ci bi daawul jënd mango mbokk yooyu nag mooy ñoo xam ne nii xamuñu mbokk ay montre ak ay haut-parleur ak ay tappeek yooyu ay moyen la pour des jaamu yàlla yi mais du jaamu yàlla go bees ku ñu sos am maa nag la nga xam ne moom mooy diine ji ku ne xam na ko askar yi ñu sos ak julli yi ñuy sos ak nangam yi ñuy sos ak loolu ku ne xam na ko mi ngi noonu suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala ne bu dul woon ak dig boo xam ne tudd nañ ko ba pare kon day doon nañ atti seen diggante waaye tooñkat yi mbugal bu tar moo leen di ñeel te it mbokk yàlla yàkkamtiwul te it li tax yàkkamtiwul wax nañ ko fi démb wolof dane sàcc bu dul raw jërul nga yàq say nelaw mi ngi noonu sàcc boo xam ne du la mënoo fexe ba mu raw la jarul nga yàq say nelaw noonu la ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala amee it ndax tooñkat yi kenn du raw mu ne yowmal qiyaama da nga fekk tooñkat yi doon ñuy tiit yéegal ci aaya 18 bi da nga fekk jullit ñi ñoom ca àdduna ñu ngi doon tiit bëggalum yàlla yéefiri naan ah waaye kañ la bëggalum yàlla allaaxira nag contente contraire ba muy am yéefir yaa ngi nii mbugalum yàlla ngi ni nga gis ñoom mushfiqin ñu nekk di tiit mbugalum yàlla mi ngi noonu wóor na leen ne ca la ñu jëm borom bi subhanahu wa taala nag ne waa ajjana ñi nga xam ne ñoom ca ajjana ba ca adduna kaanu qablu fi ahlina mushfiqin ñoom tey la yàlla di may dal ñooñu day ñoom ña nga ca jardin ya mi ngi noonu suñu borom di leen fa fekk ak ay xéewal ci lépp loo xam ne neex na leen lahum ma yashaa'una inda rabbihim mbokk loolu allaaxira rek la am wallahi président yi amuñu ko milliardaires yi amuñu ko allaaxira loo bëgg yàlla def lu waral loolu mooy bi ngay dund lu neex yàlla rek nga doon sàkku kon bi ngay dund lu neex yàlla rek nga doon sàkku boo demee àjjana it lu la neex yàlla defal la lahum fiha ma yashaa'un borom boobu nag mu ne zalika huwa al fadlul kabir ngëneel bi gën a màgg ci ngëneel yi ay waa jeunesse bi du nekk professeur université du nekk ñu boole sa tur ci milliardaires yi du nekk nga nekk chanteur wala footballeur bi gën a célèbre xamal ne ngëneel bi gën a rëy mooy nga fexe ba yàlla jagleel la aljanna yàlla na yàlla defal ñu ko defal ko bépp jullit mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يحكم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد barakallahu fikum suñu borom mu ne zalika zalika allazi yubashiru allahu ibada loolu day di àjjana jooje moom la yàlla di bégale ay jaamam allazina amanu wa amilu salihat ñooñu nga xam ne gëm nañu tey def jëf yu yiw ya qul laa asalukum alayhi ajra nee leen man day laajuma leen ci lii benn fay illa al mawaddata fi l qurba lu dul ak cofeel cig jege ñaale wa man yaqtarif xasana koo xam ne faggu na nag aw yiw nazid lahu fiha xusna ñun yàlla daan ko dollil ci yiwam woowee inna allaha gafurun shakur sa borom yàlla mooy kiy far ay bakkaar di leen suturaal waaye mooy ki sant it ay jaamam am yaquluuna aftara ala allahi kaziba am du tey ñi ngi naan moom kat dafay dooral ci yàlla ay fen fa in yasha illahu yaxtim ala qalbik su neexoon yàlla mu kaste ci sa xol bi wa yamxu allahu albatila yàlla kay mooy far ak neen wa yuxiqu alxaqa bi kalimaati mooy dëggal ak dëgg ci ay kàddoom innahu alimun bi daati sudur moom day mooy ki xam te la nekk ci biir dënn yëpp wa huwa alladi yaqbalu tawbata an ibadi mooy kii nangu ak tuub ñeel ay jaamam wa yafu an sayiat mooy jéggale ñaaw kéef ya wa yalamu ma tafaluun te it moo xam li ngeen di jëfe wa yastajibu alladina amanu wa amilu salihat mooy nangul it ña nga xam ne nii ñu mooy mooy wuyu ña nga xam ne dañoo gëm tey jëf lu baax wa yaziduhum min fadli mu dolli leen ci ay ngëneelam wal kaafir naam wa yaziduhum min fadli mu dolli leen ci ay ngëneelam wal kaafiruna lahum azabun shadid amma yéefar yi dana leen ñeel mbugal mu tar naam mbokk suñu boroom nee na mi ngi bégal jaam yi ci aljanna ay yéen ndaw ñi yéen a ngi dégg lu bari ci sunu ndawi réew biñ demee ba ñàkk yaakaar ñu bari ci ñoom bokk na lu ñuy bàkkoo mooy barsa wala barzaq te noonu mu feeñe ci wax ji jëf ji yépp loolu lay nuru ndax ku ne xam ne océan bi nga dem dugg ci ay gaal sarse gaal gi ba kenn xamul nu muy mel dugg ci biir neige bi soo demee di affronter garde-côtes yi ñuy dóor ay bal réel loolu dog mbokk daanaka jëf ji moom day wane ne naa dem rek wala ma dee mi ngi noonu donte ne nii ña ca dee ñëpp yal na yàlla jéggal leen yërëm leen te bindal leen tuyaaba ku doon faggu alalu yàlla waaye nag ku ñu déggali doo ci dugg mbokk wërsëg su yonent alayhi salaam gëmloo nañu gannaaw bu ñu yàlla waxee kenn ci yéen du dee ca wërsëgam dee ko bul rey sa bopp soo mënee dem bitim réew fa lillahi alhamdu suñu borom nee na moo ñu tàggatal suuf famshu fi manakibiha demal Canada demal Europe demal fu la neex waaye nag jaay sa bakkan pour dem jaru ko xanaa xamoo ne am na ñu fa nekk te bu ñu añee duñu reer loolu kon yow àndal ak sa dal rek sa wërsëg wallahi xam naa benn waay boo xam ne ba mu kurkuree kurkur kurkur ba wàcc Italie gaa yi takk ko delloosi ko mi ngi noonu tey jii kam bëggoon a fekk Italie ci ay emploi yum la bokk fii Sénégal gis ngeen loolu kon mbokk wërsëg bi ci loxo yàlla la nekk moo tax suñu borom lan xam nga lu mu ñuy bégal muy aljanna muy bëgg-bëgg bi ndaw ñu am pour Barcelone ak Italie ngallaawaay am leen ko pour tabbi aljanna seen temps yépp jagleel leen ko xam jàng seen diini jëfe seen diini woote seen diini ngëneel bi gën a rëy rëy rëy du moom trésor Amérique wala trésor Russie ngëneel bi gën a rëy rëy mooy fexe ba moom trésor ya nekk ci aljanna borom bi nag nee ne loolu mi ngi ko jagleel ñi gëm tey def lu baax amma yonent yàlla bi bi mu wootee ci loolu waa Makka yépp dañ ko dummooyu lu dul lu néew a néew mu ne leen yéen waa Makka man lii laa di mu leen ci pay te mboolem yonent noonu lañ meloon amul benn yonent boo xam ne ña gëm diinam topp ko dafa am ay lu mu leen daan teg comme niñ koy gisa ci diine tey jii nga noonu niñ koy gisa ci diine tey jii loolu musul am ci diine yu jëkk yi li ma leen leen daal lay sàkku ci yéen almawaddata fil qurba loolee mbokk am na ñetti firin almawaddata fil qurba mooy ñu ko firee an taqarrabu ila allahi bi taa mooy li ma leen di woo mooy ngeen am cofeel ci bëgg a jege seen borom ndax yonent bi nekkul lu dul daa'iyan ila allah day woote jëme ci yàlla ngir ngeen jege seen borom loo rek moom laa ci jëblu am ñu firi al mawaddata fil qurba mooy mboolem waa Quraysh ñoom ñëpp ñoo bokk benn maam mboolem ñu dëkk woon Makka yëpp ñoo bokk benn maam seen maam bi mu nekkoon Quraysh kon ñun ñëpp ay mbokk lañu ngeen bëgg ba ngir seen mbokk te arab yi dañoo amoon aada ak même ceddo yi seen mbokk moom duñ ko xeex mukk lu ñu am ak moom problème it keneen bu jógee feneen bëgg koo xeex ñoom ñëpp ñu takkutoo dal ci kawam loolu ku xam du koy ceddoo loolu moom mi ngi ci ñoom kon ñun ñëpp ay mbokk lañu waaye bàyyi leen ma ci ma ma ngeen def li ngeen def bàyyi ma ci li ma gëm doonte ne la ëpp ci borom xam-xam yi nag lañ ko firee mooy ilal mawaddata fil qurba laa jëma leen daal xanaa lu dul ngeen bëgg ma bëgg sa njaboot te daa bokk ci li ñuy jaamoo yàlla yonent yàlla bi gënal la keneen ku dul yonent yàlla daa bokk ci ni ñuy jaamoo yàlla ñu bëgg ku ñu xam ne kii sëtu yonent yàlla bi la mi ngi noonu doonte ne suñu jamono yi tey xaw na jafe mi ngi noonu waaye ala kulli xaal ki ñëw taxaw mu ne man samay maam yonent yàlla mooy sama maam gënal ko yonent yàlla mooy sa maam soo mënee teral ko nga teral ko wala nga bàyyi ko mbiram su waxee dëgg moo alhamdulilah su fenee boppam la la lor jeex na ala kulli xaal moo war nañu bëgg yonente bi bëgg famille yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu it règle générale la bu yàlla tëral en général nit ki boo boo ko bëggee même bu doon te ne dee na lu yàgg bis boo dajeek nit ñun la kii doomu diw la oh da nga koy taf sa kaw ah doomu diw lu tax tey nga mës a gis kii xamuloo ko dara mais xam nga bàyyam rek da nga koy daal di bëgg ngir loolu kon loolu moo tax illal mawaddata fil qurba borom bi nag ne koo xam ne faggu na benn yiw danaa ko dollil yiw boobee te mbokk mi ngi noonu heure boo defee tuyaaba yàlla fay la beneen tuyaaba gis ngeen lu baax day yóbbu nit ki ci lu baax tey nit ki day ñëw ne xaaral ma dem jàkk di julli mu ñëw fekk fa benn dars dars boobee mu jëriñu ci ñi ngi laaj ndimbal mu làmb joxe ndimbal gannaaw ba yàlla may ko fay relation gis ngeen lu baax lam jëkk a def ni ko ci yàlla dolli yeneen bokkul ak it tuyaaba boo def yàlla da koy ful bàkkaar boo def benn bàkkaar la ko yàllay bind tuyaaba boo def yàlla bind ko dix au minimum loolu tax ci gën a perte ci ñu perte ku ñu dem yowmal qiyaama say un un ñu koy compter mu ëpp say dix dix kenn gënul alku ku mel noonu yàlla na yàlla musal ñu ci barab boobu nag subhanahu wa taala mu ne dañuy gis ne day dolli yiw noo nit ki jaar yoonu bon it su ko yàlla yërëmul même chose benn xale bu jigéen day taggu mu jëmale man daal naa dem jaay saa bopp kere ba mu gàddoo saagam di jaay boppam ba mu demee ca baar ba ca la commencé naan ca la commencé sàcc ay client ca la commencé histoire kaza wa kaza lu tax mooy yoonu mbon day dolli mbon yoonu mbaax day doona baax wa yazidu llahu lazina ihtadaw huda borom boobu nag subhanahu wa taala ne am ñoom ñi ngi naan muhammad mii yàlla waxu ko dara li muy wax ay waxam la mu ne man su ma neexoon tëj sa xol te lokk mbokk loolu ku nekk ci ñun war ci bàyyi xel yàlla subhanahu wa taala xoli jaam yi moo ko yor moo koy wëlbati moo koy jël nu ko neex wallahi doomu aadama dañuy gis ñi toog rek yàlla jël xelam sans raison sans accident sans dara yàlla jël xelam am na ci kattan comme ni muy jële sa ruux mu ne nag yonent bi moom bu demoon banaan di ma dóoral di ma wax loolu ma ko waxul am naa kattan kaste xolam mi ngi noonu waaye kay li am mooy yàlla mooy nee far ak neen te mooy shirk bi ngeen nekk yàllaa ko yónni ngir mu far ko yàllaa ko yónni ngir mu dëggal dëgg ca la nga xam ne mooy ay kàddoo ca loolu it keroog ba muy ubbi màkk loolu la doon wax ba ñuy daajal xërëm ya mi ngi ca boole jàng aay bi yàlla yi wax jaa al xaq wa zahaqa al baatil dëgg ñëw na neen sànku na suñu borom yàlla ne moo xam li nekk ci dënni jaaj bi loolu it ku nekk ci ñun war a ragal heure booy jaamu yàlla nga xool ban yéene moo ko lal suñu borom du la atte ci say jëf waaye da lay atte say jëf ak sa yéene mi ngi noonu yanzuru ila amalikum ila qulubikum wa amalikum xol yi lay xool ak jëf borom bi nag ne mooy nangu tuub ñeel ay jaamam ay yow mbokk julit quel que soit nit koo gis ko sànku góor jigéen la ah agresseur la lu mu mën a doon woo ko mu tuub buy tuub yàlla di ko baal ku tuub yàlla baal la doonte ne am na ay charte yu xaw a bari waaye ñett moo cay fondamental mooy nga reconnaître ni lii nga doon def bàkkaar la nga bàyyi ko ci saasi ñaan yàlla mu jéggal la dogu ne dootoo ko def yàlla baal la bàkkaar bi jeex na yàlla baal la bàkkaar bi lu dul bàkkaar bu aju ci aqi doomu aadama ak yeneen yu cay aju waaye ku tuub yàlla baal la fii ak sukuraatoo fii ak sukuraatoo ku tuub yàlla baal la mi ngi noonu lu dul ñay fekkee mujj jamono te loolu moom beneen mbir la borom boobu nee na mooy nangu tuub ci ay jaamam loolu it day wane ne tuub googee yàlla moo ko mën a xam doomu aadama dana dem ba mujj mu bàyyi sàcc doomu ñu naa di di tuub na fekk na daa mënugul a sàcc bàyyi njaaloo daa amul occasion njaaloo kon yàlla dong moo xam tuub mu ne it mooy jéggale ay ñaawteef yaafu ani sayiaat ca mbokk bakkaar yi nga xam ne da nga koy def muy ay bakkaar yu ndaw ak ay bakkaar yoo yëgul yooyee soo bàyyee bakkaar yu mag yi tuub ko yooyu yëpp yàlla baal la ko loolu tax julli ak julli day far bakkaar koor ak koor ajjuma ak ajjuma mooy yàqu woon sa yaat yàlla day bale te rawatina nag guddi yi ñu desee yonent bi alei salaam dañu doon ñaax yaay Aïcha mooy ñu bëril di wax allahuma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yàlla yow yaay jéggale te da ngaa bëgg jéggale yàlla nag ma jéggal mi ngi noonu suñu borom it mu ne xam naa li ngeen di jëf wa yaalamu ma tafalu fa lillahi alhamdu ñu ngi koy jàng yàlla ñu ngi toog sam néeg di jàng sam téere xam nga li ñuy jëf yàlla nag ñu nangul adduna ak alaxira nee na it mooy wuyu ñi nga xam ne dañoo gëm cay def lu baax yastajibu ay ki nga xam ne gëm na yàlla def lu baax heure bu woowee yàlla yàlla wuyu ko heure bu woowee yàlla yàlla wuyu ko su ñaanee yàlla nangu su woowee yàlla yàlla wuyu ko loolu it mbokk la la koy may mooy ñaar al imaanu saxiix nga gëm yàlla bañ koo bokkaale jëf lu baax mooy jëf boo xam ne daa dëppoog sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi nee na danaa ko wuyu dolli leen ci samay ngëneel te mbokk ngëneelu yàlla du jeex lépp loo xam ne yaakaar nga ko te xéewalu adduna ak alaxira dee ko ñaan yàlla yàlla mooy borom yi ngëneel te moo koy jox ku ko neex muy alxani soxlaalul kenn dara loolu kon mbokk mi ngi noonu amma yéeféer yi suñu borom mu ne moom mbugal mu tar mi ngi leen di xaar mi ngi noonu mbugal mu tar mi ngi leen di xaar léegi ak lu ñu mën a am ci adduna yàlla mën na mu jox leen ko waaye li lay lay xaar yéeféer daal muy mbugal mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير
jazakumullahu xayra suñu borom mu ne walaw basata allahu rizqa li ibaadi bu doon yàlla daa tànnalu daa tàllal wërsëg ñeel jaamam yépp la baxaw fil ard kon day doon nañ bew ci kaw suuf walakin yunazzilu bi bi qadarin ma yasha waaye mooy wàcce ci ab kem la ko ca soob inna huwa bi ibadihi xabirum basir moom day ci ay jaamam da ca ñàkk kumpa muy xabir basir ku leen di gis la ay ku leen xam la wa huwa alladi yunazzilu alxaysa min baadi ma qanatu mooy ki wàcce taw bi gannaaw ba ñu ñikkee dem ba yaakaaratuñu wa yanshuru rahmata mooy tasaare yërmandeem wa huwa alwaliyu alxamid moom mooy aji péyte ja mooy ka yeyoo cant yépp tey sant jaamam wa min ayaatihi xalqu samawati wal ard bokk na ci ay kawtéefam bind gim bind asamaan yi binduk asamaan yi ak suuf wa ma bassa fihima min daaba ak la nga xam ne tasaare na ko ci biir asamaan ak suuf ci ay luy dox daaba mooy maa yaddibu fil ard luy dox wa huwa ala jam'ihim ida yashaa'u qadir moom day heure bu ko soobee dajale leen ku ca am kattan la wa ma asaabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum lépp lu leen dal ci musiba xam leen ne yéen yéen a ko faggu wa yaafu an kasir te te yàlla day dafay jéggale ca la bari wa ma antum bi mujizina fil ard nekku leen mukk di mën a tëy yàlla ci kaw suuf wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir du leen ñel gannaaw yàlla ku leen di féetewoo wala ku leen di dimbali mi ngi noonu mbokk doomu aadama yi dañuy xalaat rawatina yahud yu bon ya daan wax yadullahi maxluula waaye yàlla dafa nay waay pour ñoom yàlla mën naa jox ñépp wërsëg woo xam ne day yaatu suñ borom yàlla nag ne ci yërmandeem la joxe ñiy xañ ñi gaa yi tey jii ba doon te ni Parcelles Assainies gi ñu nekk ñépp ay milliard ay millionnaire lañ sëñ taam sa buus bu buusee ku la koy débuseel yaa ngi dégg kan ngay woo mu naan da lay tabaxal ay immeuble nekk ci ay dixième étage di risque ba kanam kon suñu borom ci yërmandeem moo ñu jël ñii mu jox leen ñi mu xañ leen li yettaxisa baaduhum baadan suxriya ngir ñii di mën a jëriñoo ñu ci des loolu nag firiwul ci ne ñam jox dañoo gën ñim joxul déedéet da koo def ngir àdduna baax loolu lu ab jullit war a gëm mu ne moom mooy wàcce taw ca it ah mu ne noonu moom mooy wàcce wërsëg ci lem bu mu ko neexee yunazilu bi qadar jaam bu nekk mooy xool la ka soob jàll wa ala mu jox la ko ci wërsëg wërsëg woowee amul lenn loo xam ne mën na koo kale ba du ñëw amul lenn loo xam ne mën na koo yokk ca du yàlla yunazilu bi qadar borom boobu nag nee na moo gën a xam ay jaamam mooy alxabir ca mbokk doomu aadama yu bari commencé ci man mi di wax suñu sañoon nekk ay millionnaire yor alal ju dul jeex waaye fekk ne yàlla xam gim la xam ak yërëm gim la yërëm moo tax mu xañ lay million wallahi jataay bii tey jii ñu toog nii quatre-vingt-dix pour cent yi bu yàlla ubbileen ay million dootuñu toogate fii gis ngeen ña nga ci yeneen yaa ngi yaa ngi dégg loolu mbokk mi ngi noonu da ngay gis ñoo xam ne astuur sañ am ñoo ko moom gérer ko di dund yàlla di yaatal di yaatal di yaatal ba mujj alal di wëlbati ko moom leen am déet alal bu yàggee rek moo lay moom léegi moo lay conditionné léegi fii ngay tukki fee ngay toog nangam fii calcul suba calcul ngoon ila axiri loolu moo tax ba yàlla muy alxabir lépp lu mu la féete la sant ko na am jóg nga di sàkk wërsëg yàlla yombal na wërsëg santal yàlla delloo ko fi neex yàlla ngi noonu am ma yaa ngi def sa warugar mbir yi dëgër na muñal ndax xamoo bu wërsëg yu yaatu woon naka ngay def borom boobu nag ne moom mooy wàcce taw gannaaw ba ñëpp yaakaaree taw dootu am te loolu mbokk chaque année muy am ñu deme deme dem ba jàpp nawetu ren bi c'est fini yàqu na yàlla dernier mois mu sotti ci ay xéewal yoo xam ne nit ñi góob luñ mus a góob loolu nag noonu muy wàccee taw fu ko neex noonu lay wàccee wërsëg fu ko neex ngay dégg météo ñu ne taw na Kaolack taw na Mbour romb dëkk ya ca diggante ba taw na Saint-Louis romb Louga taw kii loolu yàlla moo koy def nu mu ko neexee wërsëg wi it noonu la demee banam boobu subhanahu wa taala nag ne moom mooy yaatal yërmandeem te mbokk taw mooy yërmande gi yàlla wàcceel kaw suuf xamal ne yow julit sa quatre-vingt-dix-neuf pour cent dund base boobu mooy taw suñu toogal lu jege vingt ans trente ans tawul adduna tukki la chaq adduna tukki kon mooy yaatal yër yërmandeem tasaare ko moom dong nag muy alwali yàlla dong nga mën a yaakaar féete woo ko sa yaakaar du tas adduna du tas alaxira moom dong alwali te it mooy alhamid moom dong yeyoon ñu sant ko ci mboolem xéewal boo yëg ak boo yëgul nga la waayi mbokk jurit li nekk sa poche bi nekk sa compte bancaire bi xéwul yàlla la de moo la tànn jox la ko nattoo la ko borom boobu itamit boo ko delloo xéewal bi mu sant la moo yeyoo cant yi te moom mooy sant ay jaamu alhamid fa'il maf'ul mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag ni bokk na ci ay kawtéefam asamaan bi leen tiim ngeen koy xool mi ngi noonu ba nag Ndakaaru du gis asamaan mi ngi noonu ñu ngi ca portable ak télévision ya waaye mbokk su la yàlla wërsëgaloon nga demoon benn dëkk boo xam ne vingt kilomètres à la ronde amul courant ba nga génn ba jàkkaarloog biddiw yi da ngay gis taar boo xam ne nii doo ko mën a imaginer abadan moom moo indi asamaan ak la ca nekk tàggat jant tàggat weer borom bi it nee na moo ca tasaare lam ca tasaare ci ay daaba muy luy dox borom xam-xam yu am ixtilaaf am na ñu ne daaba ci suuf rek la am ndax daaba mooy luy dox bu dee asamaan malaaka yi fa nekk dañuy naaw suñu borom yéen dañuy naaw ku li ajnihatin masna sulaasa ruba mi ngi noonu dañuy naaw doonte ne ni li gën a mucc ayib rek suñu borom nee ne asamaan ak suuf tasaare na ci ay daaba dañ naan asamaan ak suuf tasaare na ci ay daaba daaba yooyu fu ñu nekk ci kaw asamaan laa nadri daaba yooyu nu ñu mel xamuñu ñu ngi noonu xamuñu ndax mbir boo ko mës a gis ah da ngay gis ne benn mag bu doon léeb di wax ba nee na silmaxa yi ñëwoon dégg dégg ñay di dégg ñay bañ ne leen ne aw ñay am na fenn ñu ñëw war ñay bi ku nekk am loo laal kii laal gannaaw gi kii laal tànk bi gannaaw ba la jël di waxtaan ku nekk naan ñay lii la mel nañ nii la mel waaye bokk loolu mënut a sotti il faut nga jàkkaarloo moom rek xam ko kon it daaba yi ñu xam ci kaw suuf xam nañ ko kaw asamaan am na ay daaba nu ñu mel la nadri yenn asamaan lañ nekk la nadri nu ñu fay dunde la nadri loolu moom la ab julit war a gëm borom boobu nag nee na dajale leen yoomal qiyaama lu ko yomb la te it gëmal ne mbokk julit yoomal qiyaama lu yàlla mës a indi ci kaw suuf dana ko dekkal mboolem lu doon naaw mboolem lu doon dox jaan yaa ñay yaa lum mën a doon lépp yàlla dana ko dekkal su ko dekkalee atte leen ci maandu téem abi dordo nee na dama ànd ak yonent bi meddi madina am ñaari kuy yi mbëkkante mu ne ma abi dordo ndax xam nga lu mu jote ah bon de xawma ko de waaw mu ne ko mañit xawma ko yonent xamul kumpa mañit xawma lu mu jote waaye yowmal qiyaama yàlla dana leen dekkal atte leen ki nekkul ci dëgg mu jox morom mi kattan mu fayu ci moom ba nee na xar mi am ay bëjjënam fekk xar mu amul bëjjën mu dóor ko mu daanu yowmal qiyaama yàlla dana jox ko amul woon bëjjën bëjjën mu dóor kee mu daanu ñoom bu leen yàlla atte ñoom ñëpp ci maandu teem mboolem bàyyi mi ñu atte leen ci maandu teem moo tax da gis borom aw fas wutim ab charretier di ko firi di ko dóor parce que yàlla mooy àtte ci maandu te yaa ngi dégg nee na nag gannaaw bu la leen di def ñoom poussière ñoom ñu delluwaat ne que poussière mu des ñu teg jinne am na ñuy firee ne yaa layti ni kuntu turaba yéefir bi danaan ewaay ba yàlla attee ak noo xam ne ànd ak mbott ya ak golo ya nekk poussière borom boobu nag subhanahu wa taala ni moom am na kattan ci loolu mu ne xam leen ne lu leen dal ci musiba yéen a ko faggu te yàlla day jéggale lu bari mbokk suñ toogee mu war a taw tawul xamal ne bàkkaar yi la loolu tax sunna jàngal ñu nañu génn dem dajaloo jégglu yàlla ba da ngay gis lenn ci ay borom yi xam-xam suñ masaan dem di ñaan taw daaw ñu teg ci istixfaar allahuma ixfir lana allahuma ixfir lana matuna yàlla yàlla may leen ñu taw parce que xam nañ ne ñàkk taw bi bàkkaar dong moo ko waral jeex gis ngeen naka noonu géej gi di déborder bateau yi di suuf lu bëri ci ay accident yu bëri ci nangam wallahi mbokk lu ci bëri bàkkaar moo ko waral suñu borom mu ne wa ma kaana allahu yuazibahum wa anta fihim wa ma kaana allahu muazibahum hum yastaghfirun suñu borom nee na tànk ñu ngi may jéggalu du ma leen teg ay mbubal loolu ñu bàyyi ci xel bu baax loolu moo tax ba tamit su la yàlla tegee yenn natt yi xoolal dellul gannaaw réviser sa bopp torox lu war ci yàlla loolee da ngay gis ne lu ci am solo la suñu borom mu ne wala nudiqannahum min al azab al adna duna al azab al akbar laallahum yarjiun ajjuma ju nekk imam taril ñu ko mu ne danaa leen teg mbugal yu néew yu àdduna jege bi avant mbugal alaxira ngir ñu daw dellu gannaaw loolee ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi nag ne xam leen ne la yàlla di bari day moo ëpp yàlla lam lay toppee te yow jullit léeg-léeg lan la la yàlla toppee ay tiis xëy am tiis xëy am jàqare am feebar sa yaram am ay nangam yooyu yëpp da ngay gis ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala mi ngi lay teg loo xam ne nii dana tax nga toroxlu ci kanamam ñaan ko jéggalu ko waaye xamal lam la baal moo ëpp téeméer yoon yàqu am kasir borom bi nag ne xam leen ni du ngeen mën a mucc ci kaw suuf amul doomu aadama fu mu mën a daw bu rëcc yàlla te it du ngeen mën a am wali koo xam ne moo leen di féetewoo ba ñoddi leen njëriñ sama mbubal bu wàccee ci yéen du ngeen am nasiir koo xam ne mën naa ñëw ba génne leen kon yàlla kese mooy ki ñu war a yaakaar yàlla kese mooy ki ñu war a ragal yàlla nañu yàlla sàmm àdduna ak alaxira féete wuñu àdduna ak alaxira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain guddi it incha allah lan laa ci bëggoon wax sax xam naa li ñu doon wax rek ci li ñuy kaamil bu ñu doon jàng tey ci guddi lañ koy jeexal incha allah naam waaw bismillah naam waaw bismillah waaw salaatu tasbix day lu tasaaroo la ci téere yi waaye day boo dajalee tegtal ya ca borom xam-xam yi wax loolu nekkul julli gu wér julli la koo xam ne safaanoo na ak lañ xame woon ci julli na yonent bi doon jàngale julli muy benn ñaareel ba la nga xam ne wax nañ ko ca loolu waxuñu ko ci lenn ba nga xamee ni daal ci gàttal léeg-léeg nga dajeeg ay ulamawul xadis ñu ne wér na waaye daal la nga xam ne boo ko dajalee ci ay tegtal dañuy gis ne salaatu tasbih nekkul salaat bu wér wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam moment bi gën ci génne zakatul fitr mooy bu ñu demee ba ñu ne suba la ñuy julli mën nañ koo génne ñaari fan lu jiitu loolu loolu mën na nekk dernier délai bi mooy gis julli bi avant ngay julli ci waaye léeg-léeg da ngay gis ne borom xam-xam yu bari dañuy soppoon bala ngaa xaar bu bisu julli bi teel koo jox faqiir bi moom mu teel kaa jëfandiku looloo tax nga bàyyi woon ba ñu suba wala suñ bisab tey bi masalan yooyu yëpp mën naa nekk loolu ngëneel la wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah waaw yonent yàlla isa yonent yàlla la garaatu yonent yàlla du ko nangu su dellusiwaatee day nekk yonent waaye day tënku ci sharia yonent yàlla muhammad yonent yàlla haarun yonent la woon mi ngi tënku woon ci sharia yonent yàlla muusa loolu kon lay doon mais ci sharia yonent yàlla bi lay tënku ndax yonent yàlla muhammad sharia am nekkul lu dul confirmer dëgëral mottali sharia yonent yàlla isa wallahu aalam naam ah naam kon jeex na question waaw yal nañu yàlla dëppale ngërëmam fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain